jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte ñu ngi fii ci géejawaay vraiment ki may seet si dafa jugee États-Unis bi mu jugee États-Unis dafa ñëw di làqatu woo naa ko trois jours barki démb ba léegi maa ngi koy woo pour kalek moom mu naan ma tey suba bëccëg ngoon guddi bëccëg waaye am na ku ne moom mu ngi fii ci biir place bi dafay dugg ci biir fekk ko fo mbokk kaay leen Ibrahima kaay <laughs> xool ko xool leen ki ma seet si yéegal salaamaaleykum jëri bàyyi siyaar waaji sant bu wér am jàmm kay alhamdulilah daa ku may soxla fii li làqatu fu ne laa lay fekk xanaa ah, di nga coupé de fu ne laa lay fekk fu ne daw daw nga maa daw barki démb ba léegi maa ngi lay wër bulu ba laa gis waaw waaw góor yomb day dëggal waaw ok góor day dëggal bokk nga ci clip bi ko see tey bokk nga ci góor yomb waaw ji kaar macha allah sa gatu gémmiñ bul ma catu soo gisee ma lay daw am na lu ko waral ndax xam naa si jikko seytaane nga te danga may laaj ba laaj ma loo ma watta laaj moo tax boobu la yaa may woo jili demewul loolu su ma rakk nga man ba ñu ma wax ak yow waaye da nga nekk seytaane moo loolu rek laa loolu rek laa mooy taw saytaane gi di ma tàngaloo di ma wax loolu moo ta wax moo tax rek waaye tey li la won fii ba nga fekk ma fii man moo ma jaaxal ah man de non li la woon fekk loo xam ne man maa ngi fii man moo ma jaaxal man ah, léegi moom maa ngi ñëw après ñu bu dee gisuma xam naa fi ma waa fii mooy marché bu bees sama place su rakk la sama xarit muy maam góor ñu koy wax góoru yombul taalibe sëñ Babacar waaw nga fekk ma fii ci place kon nag su ma waxul dafay nuru leneen te sama rakk la c'est mon frère sama frère sama rakk la mi ngi ne ci biir mooy taalibe sëñ Babacar bi eh. tubaarikàlla macha allah eh. xeetu tiisi boo bëgg eh. soo ñëwee fii am ko xale ba nga xale bu am jom am fulla nangoo nekk taalibe sëñ Babacar taalibe sëñ Babacar ba pare nangoo liggéey sama rakk sama frère ah sama rakk nekk fii ci marché bu bees feetu xeetu tiisi boo soo ñëwee fii mu jaay la sama rakk la sama frère soo ma fekkee fii su ma waxul dafay mel damaa soor te man soxoruma sama frère sama rakk la. xuloo nga ku ne nag non non non non non xanaa yow seen saar yi ay saytaane ay fii para moo tax ma la doon nëbbatu boobu ba ma may leen ma jàmm waaye su ma fekkee fi su ma waxul dafay mel ni waruma wax. baa duggeel xuloo non baa jëli déedéet yee kii moom macha allah non kii moom maa allah kii moom wax dëgg yàlla kii mooy monument Guédiawaye di sunu mag di sunu kilifa di lépp kum joteel nag kooko ko tooñaa. non ah na mu jëy Abuja nag ku ba max na a jël. Ah. Ah, waaw vraiment dëgg la doomu ndeyu Balla Gaye bëgg Balla Gaye ba jeex tàkk barki Serigne Saliou sama rek c'est mon frère. ayca ah, bisimilah su ma waxul rek. dalal ma voilà dama lay dalal ndax tubaarkàlla nag jil nag xool place bi kenn tiis boo bëgg soo ñëwee fi am ko ah bi nga dul sopp sëñ Babacar góor yombul. góor yombul. <laughs> jërëjëf mbokk yi comme ni ngeen ko gisee. vraiment toogal naa ki nga xamante ne waxtaan nañ ci biti dugg ci biir muy màggatu jaan astafurlah. liiru jaan liiru dama juum non dafa la non dama man du ma morom. loolu dëgg morom jaan yooyu yëpp dama la sequma <laughs> oh, dama la da ngay yaradiku man du ma sa morom. da ngay respect booy man du ma morom. liiru jaan ay màggatu jaan respectement non non non respecté ma ok waaw loolu laa bëgg nga respecté ma ah waaw noonu ma laa respecté ma rek. dëgg la baa bul ma ko waxatee ah. dëgg la Lirou Diane tey balay jaajëfal bu baax vraiment Lirou Diane gis nañ euh, nga demoon États-Unis waaw doon préparer sa combat ak wulli wulliwaat waaw bëggoon nañu xam lan mooy sababu dem États-Unis bi préparer ju ak combat bi diggante bi yàqu-yàqu beeg li nga xamante ni jot nga ko fere ci combat bi ak coono bi yëpp jili hmm. waaw maa lay ziar di ziar sa caméraman bi hmm. fekk ma fii ci géejaway digg géejaway fii hmm. mooy marché bu bees fekk ma suma place su rakk suma xarit muy maam góor ñu koy wax góor yombul taaliba sëñ Babacar nga xam ne xale la am jom nangoo liggéey gëm boppam voilà moo tax ne gëm sa bopp rek moo am solo ci àdduna ndax euh, booy bi soo xoolee fi mu déparé maam góor ah gëm boppam moo tax mu egsi fi mu egsi nekk taaliba sëñ Babacar doon ambulant comprendre nga. Mm. tey euh, sant yàlla yàlla na ko yàlla musal ci cat ak làmmeñ mm. vraiment ba li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal. ba mu mm. àggale ak ndawam ci jàmm ak salaam comprendre li mu bëgg moo xam yàlla ko yàlla defal. ndax xale bu am jom la. voilà nga fekk ma fii ci biir itam euh, tey. ma ñëw dama ci am feer ndax soo mu fekkee waxuma dafay mel ni dama lay wax rek dama lay wax non dama lay ah. damaa soxor ndax ma damaa bëgg géejawaay géejawaay laa am man muusu géej way su jógee sax ma jóg sama rakk la sama rakk la hmm. sama frère hmm. soo fekkee fii su ma waxul dafay nur leneen hmm. ndax tey jii fa ma joxoon rendez-vous sama kër nga bëggoon a ñëw mais euh, damaa génn damaa génn nga sonal ma witt ba fekk ma fii kon nag ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu sama rakk bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm di nuyu waa géej way gépp nag vraiment ah, di nuyu monsieur le maire Sall Ngaari Bourguéré sama xarit Mm. Aliou Sall. Mm. maa ngi koy nuyu. Mm. nuyu Balla Gaye 2 grand champion ñoom Lac de Guiers. ñoom Gouye Gui ñoom Alioune Seye ñoom Marley. ñoom Pape Thiam ñoom Jackson. ah nduur Youssou bi mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam. day bëri dimanche le 22. sama doom Thiatou da Fall dafa am combat yàlla na ko yàlla may ndam. at réparé. tamit dafa am combat yàlla na ko yàlla may ñoom ñëpp. samay rakk lan yàlla na yàlla defal jàmm biir géej way xale bu ci am combat yàlla na la yàlla may ndam hmm. di nuyu sama waa ji Modou Dieye seen tam di ko gërëm bu baax di ko sant di gërëm ñëpp waaw di sant ñëpp États-Unis bi ñëw waa Amérique waaw waa Amérique soo ma waxee damay sawar ci Amérique nga jógee waa États-Unis laa jóge waaw lan woon li ma fa yóbbu woon maa ngi nuyu moo Ndiaye directeur série Madeleine hmm. damaa dem mu dugal ma ci genre boo xam genre pour la yow mi waaw barki rasulallah genre pour pour loo xam sama yaram yëpp la ñuy xool médecin waaw non comme ni mooy médecin yi def suñ lay xool sa yaram pour ba xam attan nan entraînement yi voilà externeur ah. comme entraîne externeur comme ni entraînement yi ma war a jël ba xam man sama yaram attan na ko wala attanu ko hmm. ñu dugal ma moo ñaay yóbbu ma foofu ñu jël sama yaram bi bi may gis sama bopp ci ay genre verre laa takk ay verre di gis sama bopp genre télé bi écran bi di xool li nekk sama yaram yëpp après ñu ne la di xool sa ñu ne ma lee tout yow mi waaw ñu ngi ma tout à fait lépp tout à fait ndax xam nga. sa yaram baax la yow baax la kon. booy dama lay xool booy dama lay wax non dama lay wax booy non dama lay wax. appareil bi yëpp appareil bi génne yëpp ne tout à fait. est-ce que sa appareil boobu baax na jili jili dama lay wax léegi loo bëgg kon sama yaram moo baaxul ndax appareil kon moo baaxul léegi dama lay laaj man damaa a def tuuti bee man li ma doon entraîné man soo ma gisoon xam def tuuti bee ndax tey jii fekkoon defuma loolu du ma du sama yaram li ma doon sëqoo ak li ma doon entraîné kon dama ko entraîné la Amérique la dem ñu dugal ma ci yooyu moo njaay yóbbu ma fa directeur série Madeleine hmm. may entraîné après ba nu ma jox ñu xool sama yaram ni mu tuuta bee hmm. may dem di commencé entraîné lépp naa hmm. euh, euh, série Madeleine moo def loolu vraiment moo njaay at ma sama waa ji sama baay faal bi lu nuy waa changeuse Mor Ndiaye Afia waa kanaal ñoom ñëpp at Grand Sam at waa consul ba at at euh, Cheikh Thiam téer bu mag ba fa nekk at waa at leen bépp bépp képp kuy bëggee liiru jaan te nekk at Mansour Kassé sama waaje borom Kolda borom Amérique nga xam ne ndeysaan da doon woote fii rek ndax combat bi ñu gën maa bëgg combat bi la lan ñu gën maa bëgg combat bi maay <laughs> booy dama dama juum ji li ñu gën maa bëgg combat bi la dama gën Lamine wala <laughs> yaa yaa ah déet dama la dama juum ne la Lamine ngay wax yaa bari la sama secrétaire la lu ma wax dina la waaw war a wax Lamine war a dem takk jabar ñàkk nga jom trop <laughs> ñàkk nga jom trop waaw léegi nga dem fa préparé wu nekkoon ci préparation combat bu metti la metti booy bu metti jili bu metti jili ma am lu ma betti jili téemaa dusi booy bi téemaa dusi kala jëwuli téemaa dusi téemaa dusi man lu mat sept millions def naa ko ci combat bi yow mi waaw ndax bëgg combat bi am fu ma teg combat bi ndax xam nga dafa rëy làmmiñ hmm. wax rek lay def di ratatatatat rek hmm. na la loo ko daf may rey waaw ah waaw arène nationale suuf sa dafa bari waaw te armée li yaa nga tout pare fa la may rey ñu yóbbu ma foofu léegi lan moo tax bëriwul lan moo tax bëriwul dafa waroon a bëree. non Jamaïcain moo ko. non non Jamaïcain sunu rakk la Jamaïcain mënu ko àttee bëree. ke soxorul. ci contrat Jamaïcain soxorul. su bëggoon a bëree Jamaïcain dina ko mu jox mu bëree. waa Jamaïcain sunu rakk la du ñu iñaane. wulli gis na li may entraîné xam na ni pare na combat bi am na fu ma teg combat ndax xam na ni dama doon fooye combat dama xam kaar macha allah kaar macha allah bul ma ah. catu xam na ni komba bi am na fu ma ko teg hmm. te bëgg naa komba bi loolu tax mu doxalee nii looloo tax mu daw ba pare ñàkk jom ba bëgg a dee naa ma ngay tëgg combat reefan te tey jii moom avance jàmbur bu kon la dem joxe waat ay mbër pour tëgg ko lamb kon loolu lay nuru kat. ah loolu nga yow ngi war a bëri dimanche nga da tëgg lamb lundi. kon dafa xaalis jàmbur ba la jël dem joxe avance xanaa. loolu waxante dëgg yabaate la moo gét sunu nawle la. sunu hmm. demee ba ñuy jàppale yëkkati xaalisam jox ñu di tëggal combat di bëgg a def def ko feet ah ku tëgg ku mel ni ama neex ragros Baye Ma Ndione Zarko Euh, doomu dàngu Jordan euh, kii nu mu tudd euh, Arbouri Njambaan Buuse Alaaji Mbay ah man ak moom wulli ah at amaatoon na yéen combat Baara Ndiaye di ci waroon bëri at Cobra 2. Hmm. at kii tam nu mu tudd Tonnerre tam di ci waroon a bëri. Hmm. xam nga genre combat yi neex mu bu ko def feet. ah hmm. nga yàq journée bi. waaye loolu yàqul journée bi journée bi tubaarikàlla neex na amateur yi ñëw nañ. ambiance am na yaa Xaadim Njaay da ngeen non non loolu après ndax man bi wulli commencé indi ay benke ñenke lan ma proposé Xaadim Njaay hmm. léegi man man maa ne woon du ma bëreeg moom ndax la tax du ma bëreeg moom mag la bëgguma koo gaañ. yow mi ah oui bëgguma koo gaañ booy li ma entraîné ma ci moom. li ma entraîné ma ci moom te mere woon naa ko mere koo xam ne su ma bëreeg moom dama koy rey. Xaadim Njaay ah oui dama koy rey dama koy rey dama koy rey. ah dama koy rey. ah le nga naan buusi at léegi ça fait ba nga naan buusi at léegi ça fait deux booy xool ma. booy xool ma. allah kay. maa ngi mel ni ko am 25 ans yi car macha allah bul ma catu. poli lépp macha allah macha allah bul ma catu bul ma bul ma catu sant yàlla allah di nuyu sama benn waay Modou Mbacké. ca ca ca euh, Canada Modou Mbacké doo doo doo doomu ndeyu doomu doomu ndeyu maam góor la. Ah. loolu yombul Modou Mbacké. c'est mon frère liiru ñu ñëwaat ci loolu. waaw léegi ginnaaw bi nga ñëwee. waaw. Euh, ñëw nga. waaw combat bi yàqu na. waaw sa diggante ak Wouly. waaw bu bu bu buñ jàppaatee date. waaw wala ñu négocier ko pare nga pour bëre. non man bañu ma moom pare naa pour bëre moom ndax daf ma merloo ndax Wouly ku ne xam ne sama diggante moom dër bi la Wouly ca signature ba laa ne ko ñu ñaa dañuy reyante. siyaate bi ñu defoon deux laa la ko dañuy reyante ndax xam nañ dañuy reyante ndax wuli ku ko jàkkaarloo ma ku ko rey ko mu rey ma man tam su boobaa tam mun naa wax noonu man am naa lu ma ciy seet waaye nag xam naa jikkoom ci man dé ma ne ndax dafa am ñu nekk si ginnaawam hmm. ay promoteur de saytaane nekk si ginnaawam wul si am ay mbër yu nekk si ginnaawam de saytaane way ah way at ay waxat comme ça genre rek waaw way ñu nekk si ginnaaw ñëpp ak si ginnaaw loolu moo taxoon combat ma respecté ko man te man xam ni kilifa laa biir géej way Mhm. kilifa laa biir géej way sama bis du yomb. te bis bi dama ko fonkoon man dama ko fonkoon def ci xaalis def naa ci million millions. sept millions naa ko ci combat bi. préparé te bii mooy deux fois may dem États-Unis di préparer combat bi bii mooy deux fois may dem États-Unis di préparer. est-ce que léegi kon boo jëlaatee combat préparation. non non fii laa koy defee Sénégal laa koy defee Sénégal laa koy defee wax naa ko euh, euh, kii sama waa ji Euh, kii waay euh, directeur moo Ndiaye nee naa ko dimbali ma rek combat bi bis bu ñu ko taxawalaatee bàyyi ma toog Sénégal ma bari ñoom Afia ñoom moo Ndiaye ñoom wax naa leen ko ba ci euh, Mansour Kassé wax naan ko ne leen bàyyi leen ma rek ma toog ak ñoom kii Mafal bàyyi leen ma toog Sénégal préparé combat bi Sénégal. Hmm. ndax deux fois may dem Amérique su ma ñëwee combat bi du am. bàyyi leen ma toog Sénégal ma préparé combat ah. man maa jël décision boobu bi yoon. Hmm. su combat bi taxawaatee. Hmm. voilà